aawuzu billahi samil alim min aseytaani rajim bismillahi rahmaani rahim bokki jullit yi bokki taalibe yi seen mbokkam taalibe ñu di ko wax Cheikh Mbacké Ndiaye doon kenn ci taalibe yi jànge ca daaray sëriñ Mbacké Guèye ca Ngathie ca daaray te ñu gën koo miin ci Cheikh Ndiaye Mabey xanaa di waxtaan ak yéen ca la jëm ca màggal ga ci jaar-jaari sëriñ Touba ba yëgsi ca màggal ga ba ca màggal ga tey loolu mooy suñu waxtaan ak yéen la sëriñ Touba wax ca màggal ga tamit dinañ leen ko leeral bu baax fa mbiri sëriñ Touba tàmbalee mooy wéy juram Maam Mor Anta ginnaaw ba mu jógee fa Salum, ca fa ko mabba jaxu lakkon mok njabot ga ba tuwab ya faatee mabba jaxu dañoo delu ca kajoor ba ñu delloo kajoor ñu dekk fa lu yag maamu tasali way juru serigne touba dekk ak serigne touba yalla def mu kari xaritu Lat Joor dan ko atel ca yu bari ca diine mok khadi majaxate kala ca kër kumba kala yalla def ben bis mount seli tawat ta tawat sosé nak yalla def sax ci la wàcceeb liggéey ba tawat sa metté lol ci mbacké kadior mount seli serigne touba xëy ben bis bis altene julé ak suba mu commencé kamil bi di jangal jàngal ma mërante seli ci tawat si ngir ñaanal ko di jang kamil ba di jang kamil ba ginnaaw julli gee lu ko dagg nag waxtu wi juróom la ginnaaw julli gee la jekkali kaamil bi ci guddeeg altine googu nga xam ne noo ngi waaj a jëm talaata kon altine ginnaaw julli gee la Maamoor Tësali wàccab liggéey ginnaaw bi kaamil bi eggee ñu fanaanal ko bët set talaata ñu war koo rabi ca dëkk boobee ñuy wooye deqale mbooloo ma ànd ca jullee ga bari woon na lool mbooloo ma ànd ca rob ba bari woon na lool ndax ku mag génn noonu ci lislaam ma ngay doog a gaañu kilifa gu mag di maa tasali génn liggéey wàccab liggéey bañ koy yóbbu sëriñ tubaa ngi toll ci fanweeri at mbooloo yu bari ku ci ne dawal na saw fas ba tolloog sëriñ Touba ne ko naa waat ci dox te nga war ci fas wi sëriñ Touba am xelam ñaaw ca ne fas wii mën na am na mu dikkee ca boroom lewut rawaate na fas ya jóge woon ca màngam ma ñu amoon ca geerab Samba Sadio ba te alal ju fa jóge sëriñ Touba da daan bañ jege alal jooja saa su nit ne ñëwee gaaral ko war ci fas wi rek sëriñ Touba ne ko dox saa tànk ma gënal ñu jógee Mbàkke Kajoor ba deqale di juróom benn kilomètre lépp sëriñ Tuubaa da koo dox ànd ak ñi gunge way juróom ba ñu demee ca Mbàkke ku ñuy wax Muhammadu Mëndumbe mar sila moo ca donon a doonoon kilifa ca mag ña won woon Maodo Sali pour ñu yóbbu ko jëbal ko boroomam Muhammadu Mëndumbe mar sila te ñu di wax Tayba moo ko ginnaaw bu ko Mouhamadou Mandumbe Mbaar sulle silla jullee ca deqale ñu rob ko ca armée li deqale bañ ko fa robee Mouhamadou Mandumbe Mbaar silla teñ gën koo min ci sëriñ ba nee na ñépp teew ñépp teew wër ko mu ne na ñépp egg suuf toog ñépp toog egg suuf Mouhamadou Mandumbe Mbaar silla ne na ñépp déglu ñépp déglu kàddu yi boo bëggee jàng ci ban la nekk ma nga ca na Nadim bi sëriñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana mi sëriñ Touba Yar bind nii lañ ko defe mu daldi di ndokkale mbooloo ma sant leen ci nii ñu gungee Mamour Anta Sali daal leen di ñaanal yàlla fay leen ci aw yiw daal di ne ana Ahmadou Bamba booba sëriñ Touba turu sëriñ Touba wi egseegul ci moom ndax guñu yoonu murid bobu ay khadir lañu anna amadou bamba serigne touba nga wuyo ca catal mbooloo ma mu ne ko oduno jagañ sil serigne touba nonu muy jéggee mbaggi nit ñi di jagañ si da dem ba yag mu ne duy teggin dal di taxaw ne ko fi baxna mu ko oduno jagañ sil serigne touba ne ko ma ngi dégg Muneko, ne ko noo lay jaare sa wayjur jur ndokle ci mbolo mi tew ci gungé gi ñu gungé sa wayjur jur ñaanal teranga ak jamm diko ñaanal mbolo mi waye nak danoo bëgg nu and ak yow serigne touba nu dem ba ca damel ba muy Lat jor sa wolere wayjur la won xaritam la won nga jaal sa wayjur damel ba ak mbolo mi ak magi kajoor nu samp la ca damel ba mu jox la cieur bo xamne da nga xej wërsëg dina la ca fek jamm dina la ca fek sécurité dina la ca fek te lo bëgg di nga ko cham muy wërsëgu guadina ba mu noppé serigne touba ne ko noppi nga mu ne ko waw mu ne ko ndax jox ma na jox nga ma ndigalal tontu mu ne ko waw serigne touba juk lu tuti la won waye buy addu addu waxam day dektu waxam day fort mu ne ko gunge gi ngeen gunge sama way jur ñu jëbal ko borom maa ngi leen ci sant leen ci gërëm maa ngi sant ñëpp te di leen ñaanal yal leen ci yàlla defal aw yiw ñaan gi ngeen ko ñaanal maa ngi leen ci sant leen ci gërëm yal leen ci yàlla fey aw yiw waaye li nga mujj wax nag laa dut man laa ashabu du dem man sama way jur faatu may dem di ko jaare ji ab dammel may ànd ak yéen yéen mag ngeen samp ma fa dammel la ashabu mënuma ko duma dem ba sëriñ Tuubaa tontoo loola te booba nit ñëpp nguur ak àddina nekk seen xel rawatina ndaw yi féete fanweeri at mbooloo mi teew ci armeel yi deqale di dégg wax ji ba ñépp ne ëy daa mel ni day taw taw wax set ba dënnu ni dënn gu foore noonee la dënni mbooloo ma foore biñ ne ëy céyu li sëriñ Tuubaa tontu won gi mu won ginnaaw àddina ju teew ngóor gu teew alal ju teew te muy gone te won ko ginnaaw looloo tiital ñëpp ba ñëpp ba ñu ne hëy daa mel ni day taw bay dënnu ah sëriñ Tuubaa sax bu koy nettali wax jooju danaan xaaloo liya irkan li afbaabi salaatini tehuus jawaa isa tox nii kullama ini fa qultu asbi rabbi waktafaytu bihi walastu raddiya xayra al ilmi wa diini walastu arjo wala axsa siwa maliki li annahu jàll yuxni nii wa yunjini ndeysaan sëriñ bi bu koy nettali naan dañ ma jox ndigal ñoom magu kajoor ne mën naa ànd ak ñoom ñu dem fa dammel ba ñu samp la di nga am nguur gu sedd gu teey te dal ndax wërsëg dina la ca fekk woo xam ne loo bëgg di nga ko mën a faj ci sa soxlay àddina ma tontu leen ne leen loolu nag duma ko def man duma dem ca damel ba du man maay dem di jaali damel ba saa bàyyi daal dinaa joxe ngant ca loola ba ma joxe ngant tamit dama leen ne yàllaa ma doy te doyloo naa yàlla te it du soxla xam-xam ak diine ci kenn xam-xam ak diine dong liggéey lislaam moo ma ñor ragaluma teyit la yàlla santaane moo ma ñor ca loola nekk ca loola laay sax ca loola nag ginnaaw faatoog maamorante seli sëriñ Tuubaa des na Mbakke Kajoor ñaari yaat di jàngale diine na ko maamorante seli daan jàngale yàlla da koo may nag mu teel am xam-xam daana bind ay téerey arab di ca jàngale diine maamorante seli daana jër ci téerey sëriñ Tuubaa di ca jàngale diine ca daara ja ku daan jàng si ci moom tamit boo ñëwee sëñ Tuubaa lay jàngal nga dem sëñ Tuubaa dafa teeloon na neex xel yàlla ubbi ko ca diine ba nga xamee ne ñaari at yi mat na nag mu doog a woo mbooloo ma mu daan jàngal déglul bu baax li ma lay wax ku daan jàng ngir xam luxatul arabiya ngir xam mantiq ngir xam erut mbaa bayaan mbaa dégg arab dong ba mën luxa tax laa jóg mën naxwu dégg ko lool tax laa jóg yebal naa la nga dem feneen jàngi ko fa kon juróomi xam-xam yi ku mu taxoon a jóg na nga dem ja feneen jàng ko fa daal di ne leen juróomi xam-xam yi nag ku mu tax a jóg toogal ci saa daara képp koo xam ne xam-xamu diine moo la tax a jóg nga xam feq moo la tax a jóg toogal ku bëgg a xam tawhid ci diine toogal tawhid mooy gëm yàlla wéetal yàlla ku bëgg a xam tasawuf rafetal gi war a am diggante jaam ak moroomam ak digganteem ak boroomam ku yooyu tax a jóg toogal ni ko gaa yi waxe leerut de ku bëgg a jàng doo nga demal sëñ Tuubaa fan lay bañam jàng na wax bi leer dane ku bëgg a jàng diine mee toogal ku bëgg a jàng fiq xam ni ñuy jullee farata ak sunna ya koor noonu nataasaka noonu dem màkka toogal ku bëgg a xam lépp lu jëm ci xam-xamub diine bu lay jariñ ci biir bàmmeel toogal ku bëgg a jàng alxuraan ak hadis toogal li la sëñ Tuubaa wax de waaye dem leen kuy jàng demal sëñ Tuubaa kañ la mas a tere jàng jàng wax na ko ca Masaalikul Jinaan de leen jàng alxuraan tey balalu xam-xam bi di génne ca xam-xamu di ko jariñoo ngir yàlla kooku du tere kenn jàng niñ koy waxee leerut de sëñ terewul kenn jàng tey nee na ca maxaalixu niiraan ak tasawudu subaan képp ku la tere xam-xam saytaane la te ma ngay liggéeyal seytaane ku la teree jàng seytaane lay liggéeyal kon niñ koy waxee leerut na foofu leer kon ñi naan sëñ Tuubaa nee na kuy jàng demal du noonu sëñ Tuubaa dana kuy jàng diine ngir am ngërëmal yàlla toogal kuy jàng ngir dàggante mën a bind dégg arab kese demal arab am na ñu ciy woy sax ay woyu kenn xamul am na ñoo xam ne kër labbe yoo xam ne boo demee arab la ñuy la ñuy la ñuy waxtaane kon ku mën a wax ku bëgg a wax yooyu demal waaye ku bëgg a jàng ngir diine toogal yii ñaari at la ca teg daal di woote yoonu murit